bi ñu suñu boroom jàppale dimbaliñu e, ci ndigalu Serigne Moustapha Lakaram mm, suñu boroom wommat ñu ba suñu wéjur e, suñu kilifa e, suñu sëriñ sëriñ bu tedd bi dalal ñu waxtaan ak mu ñun daal ñuy dénkit lim ñu dénk li ci ëpp mooy jàmm jàmm réew mi daal jàmm la fi bëgg Euh, Sénégal jàmm la fi bëgg ñun it euh, ci waxtaan wi nga xam waxtaan nañ ko ak ñoom moom ah jël nañu jot nañu ndigal ci moom ñu nangu ndigal loolu ko ñun ci suñu taxawaay ci politique ak yéene bi ñu am ci Sénégal dinañ ko tabax ci jàmm dinañ ko tabax ci dal euh, dinañ ko tabax ci noo xamante ni doomu aadama yi duñ ci duñ ci loru sëriñ bi nag boo dajee ak moom da ngay yëg ni jàmm lu ko ñor la dal lu ko ñor la lu ko yitteel la ba wax dëgg yàlla jël naa engagement ci wetu sëriñ bi ni ko li ñuy def ci politique de bu soobee suñu borom e, dinañ ko def ci jàmm dinañ ko def ci dal dinañ ko def ci noo xamante ni doomu aadama yi duñ ci loru en tout cas fitna du ci du ci judd. waaw bi ñu jógee suba ba léegi ngir dugg Touba am ay problème nga gis embouteillage yi nga gis ndox mi ci boppam ni mu nangoo yoon yu baree baree bare te ñu xam ni euh, Touba dëkk la boo xamante ne at mu ne lu mat ay millions yu doomu aadama dañ fi ñëw kon euh, jot na ñu indi ci ay solution yu baax a baax ci wàllu ndox mi euh, ci wàllu yoon yi assainissement bi ci ci ci fépp ci fépp ndax tey jii li mu nga xamante ni man dund naa ko nekk na loo xamante ni daw na sama yaram ci yaakaar naa ne am na ci loo xam état am na ci responsabilité ak sumay équipe bu màggal gi jeexee incha allah dinañu revenir yaakaar naa dinañ ci def ay ay dinañ def ay ay ay proposition de solution yoo xamante ni mën na génne Touba ci jafe-jafe yu mel nii ci màggal gi ñëw parce que luñ war a mën a saafara ndax ñëpp xam nañ ni dat sàngam bu jotee ay million ngi million ngi doomu aadama dañuy ñëw Touba kon jot nañu jël ay solution ci ci jafe yooyu